waaw euh, soxna si euh, ñu ngi euh, amaat kontaante bu baax laaj nga am solo gis nga réseaux sociaux dañu wax ni maana silaatu silaaxun zu xaddayni la bi maanaa paaka ñaari boor la réseaux sociaux mhm. yustaamalu lil xayr lil char bi maanaam mën nga ci jëfandikoo lu baax am ci tagg wootul fay ba ila abadin mën nga cee jëfandikoo lu yiwa di am ci xas wudul fay ba ila abadin abidin moo tax c'est très important réseaux sociaux ndax yàlla ñàkk lu ko fayda média wala xadd wasal naa lahumul xawla yàlla neen ñun yàlla ñoo ñoo dooleel kàddu moo tax booy wax yow waxkat bi war nga seet li ngay wax lu mu doon fi nga koy waxee fan la est-ce que ñi ngi koy waxal ñooñu loolu du ñoom nit ki tànk yii nii taxul ci moom wax waa wàcc wàcc na ko waxkat bi buy wax war naa xam li muy wax lu mu doon ñi muy waxal ñan lañu fi mu koy waxee fan la lii mooy ko mën a orienté mu mën a génne waxam transmettre ko pour nit ñi mën ko dégg. réseaux sociaux nag bari na lu mu mën a defar waaye bari na lu mu mën a yàq. masalan li nga xamante ni mën na ko defar bokk na ci tey mooy émission bi nga xamante ni tey am ngeen ko tey ci plateau bi lu ñuy waxtaanee yàlla. lu ñuy waxtaanee Seydina Muhammad ak i jàngaleem lu ñuy waxtaanee sa Seydi Hadji Malick Sy ak topp gi mu topp yonent bi ak njàngaleem ngir ñi nga xamante ni ay nitu diina lañ te bëgg nañoo xam dara ci yàlla mbaa ñu xam ko ci yonent bi mbaa ñu xam ko ci mag ñu baax ñi kon réseaux sociaux foofu day daal di taxaw taxawaayu yustaamalu lil xayri mooy jëfandikoo lu baax lu nga xamante ni da ciy am yiw ba ila abadin abidin mais bu fekkee réseaux sociaux bi nag moom ki ñu ko jox wala ki ñu ko responsabiliser xamul lan mooy responsabilité bi da fay fogg ni réseaux sociaux bi moom caaxaan kessé ko war taxu tax hmm waye ku melni man jeunesse wi nga xamni man sama yité yëpp xam-xam la sa yuma gissé ci internet bi rek damay geussu luma yok man fu la jooju amna naa fu ma dul yokkoo itam duma ma fa toog fu ma dul yokkoo duma fa tok ndax temps dafa cher sa mam sidi Hadji Malick Sy wax na ci téré bu ñuy wax tabarakallah fala budda min shakwa ila allah kurbati mu wax ni لقد ضاعت وعمر saata منه تشترى بملء السماء والأرض wal arda mu ni sànq benn waxtu ca dund rek moom sama Cheikh Hadji Malick Sy nee na bu ñu la joxoon teraanga yi nekk ci asamaanu juróom-ñaar jox la teraanga yi nekk ci suufu juróom-ñaar nee na taxul temps boobu nga dabaatal ko mhm. kon yow nit ki lépp looy def sa temps ak loo koy mën di passé fexeel ba na nekk lu lay jariñ si wàllu yàlla na nekk lu lay jariñ sa wàllu adduna mhm. bu loolu amul bàyyil mu sedd comme ni koy nit xale yi di waxee bu loolu amul da ngay topp réseaux sociaux li la war a jariñ xamoo li la war a jariñ xamoo ko boo gisee réer gi am loolu la mhm. mooy ku nekk bu fekkonte ni dangay xool li yeyoo ak yow ak li la war a oriente nga dem ci réseaux sociaux bi rek nga xool passe boobu rek da ngay daal di noppal sa bopp mhm. mais da nga koy jaxase maanaam jaxasaan nga koy def dangay ngay jël maafe jël laax jël suppu kànja ni boolu laa bëgg a boole lekk ci noonu lan nañu war a taataanee xale yi ngir ñu dellu si waat ci ci ci précepte l'islam waaw tabaarakallahu day delluwaat ci suñu euh, première euh, maanaam suñu wax sànq bu njëkk bi ndaw mom li jiitu ci mom li ma wax bu xam-xam bu ko xam-xam lalul du def lu mu xam xam-xam lu mu do def lo xam bi ko ñaarel moy deeng nga éducation yar gis nga sallallahu alayhi wasallam ku yaru won la ndax yàlla xam na fi mu koy jëme fan la ak ñi mu koy boole ñan la motax lu njëkk mu koy wàcce daf ko préparer yar ko ba pare jàngal ko do koy wàcce mu xëy wax moom sayyidina sallallahu alayhi wasallam ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla moma yar mais non seulement yëmu ca waaye fexe na ba rafetal sama yar tapay jàngal na ma tey te ma am xam-xam kon boo bëggee am ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay xool ca loolu moo xool ni yàlla ma yaral boppam ba pare jàngal ma ba pare rafetal sama yar kon ndaw li war a jiitu ci moom mooy na fexe ba xam-xam na ñëw bu xam-xam ñëwee na ko laal yar kon lii la ñu war a rayanteeg jeunesse bi mhm. fexe ba ku am njaboot balaa dara xew mooy fexe ba bu tollee ci yar yar ko. Mhm. bu tollee tuut xam-xam nga yóbbu ko mu dem jàngi. dafa am benn kilifa ci kilifa diine yi ku ñuy wax sa Seydi Hadji Malick Sy bi muy jël benn doom bu ñuy wax Serigne si Sy taalaa taala anhu di ko yóbbu daara daf ni sëriñ bi koy jàngal kii bëgg naa ci moom ñaar bëgg naa ci moom xam-xam bëgg naa ci moom yar bu demee ba ñoom ñaar nag am bu ci nar a ba nar a manqué nga xam ni naruta am na xam-xam bi manqué te yar bi des fi mhm. xam na boo ko xasee am moo lay guider orienté la ba nga dugg ci wuti xam-xam ndax da nga naan ah man de wax dëgg yàlla donte aw ma xam-xam waaye su ma gisee borom xam-xam yar mooy tax ma wekk ko respecté ko te soo ko respecté wekk ko yàlla sédd la ci la ma yor. te mm-hmm. dañ wax ni euh, xale buy yaradiku la mu yor moomu ko xale bu yaradiku la mu yor moomu ko xale bu ñu yar mooy jugee fële ñoo jël ko dem. Mm-hmm. moom la mag ñi di léeb naan. yaroo baax yaroo baax yaroo baax soo yaroo macc tàngal yey sa guree ñaay waaye soo yara di ko yaa ko yëg xale bu yaroo baax mhm. kon ma ngi ne nañ ki yar wul li mu yor moomu ko kon ki yaru mooy ñoo jël ko dem mhm. kon li ñu mën a jàngale société bi daal mooy nit ñi xam ko mooy mhm. jeunesse li mu war a yittewoo mooy xam-xam ak yar ndax ñaar yoon bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi te loolu la wax ni nañ ci orienté jeunesse yi tabaarakallah